waaw Aïcha bon comme ni nga ko décrire par rapport aux, aux applications yi nga xamante ne ni moom la ñu liggéeyal parce que boo nee VTC yaa ngi ci transport privé te itam je pense que ni àdduna day dox techno technologie day bouger jamono à chaque fois rek bu doxee nañu jéem a xool comment faire pour que avancement yi nga xamante ni préconder dans l'ère de la modernisation ñu xool nan lañu koy mettre en œuvre ba ci secteur bi nga xamante ni ci ku ci nekk ca ca secteur ba nga nekk rek nga jéem a xool comment faire pour bénéficier de ces de ces de ces de ces avantages bon comme tu l'as dit rek bon les applications moom c'est ouvert à tout le jii ku mu neex nga toog sa kër à travers les applications à travers les plateformes nga commandé sa taxi en ligne mu ñëw jël si la yóbbu la jëlee la point A yóbbu la point B loolu day dugg ci cadre facilitation des déplacements parce que boo waxee économie tu parles de mobilité yaakaar naa mobilité lu mu gën a lu mu gën a lu mu gën a accessible ci dënc rek dem beeg dikk bi war a mën a gën a mën a ñoŋ économie bi war a gën a mën a dox léegi nag buñ ñu bam àdduna fu mu toll bon moom bu ne ñun xëy na ñooy yàq le transport noonu non euh, Mamadou parce que boo xoolee avantage yi nga xamante nii tey jii ces plateforme là et ces applications là andil nañ ko à la population ou bien ak ñi nga xamante ni mooy usagers yi doone kat lii kat day yàq. lan lan comme avantage. avantage bi mooy tey jii Aïcha xam nga dakaar yaatu na yaatuwaay boo xamante nii mën ngaa ne. la demande sax du transport est supérieure à l'offre existante parce que tey jii boo xoolee à Dakar combien de formes de transport ñoo fi nekk bari na est-ce que doy na est-ce que c'est suffisant am na yeneen transport yoo xamante ne mu ngi ñëw tey jii bu ñu demee ba numériser ko dugg dans leer de la digitalisation c'est pour que mu gën a accessible tey jii Dakar bëri na ay recoins yoo xamante ne tey jii yow ba nga nekk sa kër en tant que femme tey jii. xëy na mun ngaa bañ a génn sa état mën naa mën na laa bañ a may nga génn dox ba ca tali ba ngaa nekk dans des zones enclavées ruq-ruqaan. insécurité insécurité. tey jii taximan yi du ma ne taxi dans la plupart des taximan est-ce que taximan tey jii ñu ngi dugg ci koñ yi dem di jëli clients yi dina andi ci fañ jëm bariwul mais bu ñu mettre en place une application boo xamante ni tey jii kat yow mën nga toog sa kër commander en ligne ñu indi la un chauffeur mu ñëw et tout est réglé à l'avance booy dem tu t'inscris ci fais ta commande on t'affiche le prix la destination et tout tu as les informations boo ñëwee nekkoo fa di waxaare nekkoo fa di dox tey jii am na koo xamante ni mënul dox ba ci taliba bari na jigéen tey jii mun nga diis diisaay boo xamante ni moo dox ba ci taliba sans compter les handicapés voilà sans compter les élèves sans compter keneen ak keneen ak keneen kon loolu facilité la ça si ci cadre ci cadre boobu la nekk ñombalal ko usagers yi nga toog sa kër tu commande un chauffeur ñëw jël si la en il a toutes les informations dans son application. d'accord nous y reviendrons dinañ ñëw gën a yaatal foofu rek.